ñeent fukki millions ci ay CFA la soxna maam say Mbàkke jël defi financement jébbal askanu beleel ci dëkk bu sell bi di Touba ci ab daje bu doon amal ci dëkk boobee soxna maam say di leeral ne jubloom weesuwul jàppale askan wi ci jamono ji nga xam ni coronavirus bi mi ngi lëmbee waaye it dooleel président Macky Sall ci dëkk bii di beleel rawati Touba. kenn ko ne xam ne mbas mi jàpp na Sénégal jàpp na àddina sépp man li ñu war a man mënuñu ko kéemu tëggee mënu jënteet leen te comme fii moom mooy suñu baas politique bu mag a mag ñu dëkk bi la yoroo bi la muy suñu base jot na ñu nekk ay néew ju doole ay baykat jot na ñu wëlbateeku ñu jàppal leen ci luñ mën a liggéeyi. jox naa question dix millions sama xaalis bopp comme damaa dëkk ak ñoom ñu may jàppale topp sama ginnaaw muy sama base kenn kon xam ne élection jotee damay gañe belal ñu topp sama ginnaaw te jot na ay ay liggéeykat lan amuñu doole kenn jàppalewu leen bay bay lan xam ak sàmm jot na ma wëlbateeku suma mu mën dugg ban mën bay bana sam ndax kenn xane bay moy yok kom kom rew ndax bi la ko nax ay eh, bay kay sam kan moo tax ma dem ci banque bi waxtaan ak ñom dañ ko soo ñew lebal leen xaalis ñu mën bay mu baye mën a jaay gerte mën fay ñi sam sam bu defalee mën a fay ñu xaalis mi tam ñu dool tool nak waye depuis 5 ans ñu ngi liggéey ci li ndax ñu njëkk njëkk li njëkk ci tay wa ni mu tool tey mosuñu tool moom bu bu bu bu kenn mi météo même ndey si jëm ma 750000 waaw du DER bu du benn financement bu jógee fenn mos a jaar ci bi Belel DER bi tam dégg lañ ci am ñun mosu ñoom benn DER xam nga dëkk bu tan na Belel ay doom ay ndaw nekk fi war a liggéey ay jigéen nekk doon ay jàmbaar boo leen soxlaa ñu lu dikk war nañ cee gis seen wàll man boobu gëm-gëm la am tama leen jàppale ak leen mënul sama ci mas mi feebar bi ñu ngi koy moytandikoo jox na jox na jël naa ay masque jox leen tamit ay ordre sewal ak ay pool pour ñu xam nañ koy moytandikoo ndox mi tamit bala ngaa wax set da ngaa wax ndox ma dem ba xam ne soxla na ndox fu na jàmm ko ñu a am damaa dem yëkkati sama xaalisu bopp jënd ay jox leen fa nañ fa jaar gis daal alxaan yi fi nekk tamit damay togg ay togg leen yóbbul di leen yóbbul ordre sew leen yóbbul saabu di waxtaan ak ñoom pour ñu xam ni tey xale yi man mën a jotaay wi jur mbégte lu rëy ci askan wi nga xam ne weddiwuñu benn yoon ne ñu ngi doon jànkonteel ay jafe-jafe métti waaye di leeral ne soxna maam say Mbàkke jotoon na leen jàppale sax jëm ci wàllum ndox. soxna si maanaam bi ñu waxee ndox mi luma mat meter ak juróom ben fuk xaccal nañu ko fi ci gox bi ñun santian yi léegi li ci dess mat na téeméeri meetar ak juróom ben fuk yoy desoon it li ci doota xat ci rabina it fi mu toll mat na fukki rabina yëpp nga xel gis nga ko ciona bin doon gis ngeen ko ak xet li gim ñu xet li kon nak mam say bu ne dañuy dig leneen deena ko mën a gëm ndax li mënu dig da ko def ñëpp yi gis léegi li nga xam si mo ci desit bu alxemes seeg jam dañ ko motali gas ko ba ca marché ba marché bi depuis ban sancee forage ba nëgën ñu koy bëggal robinet mënuñu ko am soxna maam say nak bimu duggé ci li wax ñu rebina yi motali na ko ba mu wara dem ca marché ba li wara a ci ay rebina it war na mat fanwéri rebina kon nak lolé ñun dañu sant maam say té diko ñaanal fep fu mu bëgg ag yàlla na fa àgg. ndax mbolo mi liko dajalé fi tay moy crédit mutuel. ndax lépp loo xamante ne bi ne waa Belel ñoo ko mën rek moo ñu ci jàppale mënuñu dara amuñu dara noo ngi ci am rek bàkk ba finance bi ñuy financé moom ñun jigéen ñi dañuy bay am na ñuy jënd xar am na ñuy jënd nag lépp a ngi ci biir kenn ku ne na mën a def rek ba liggéey ci sa xaalis yaa xam ci sa biir ñun jigéen ñi de ba ngeen xamante ni fay ko moo jot ci irtan ni ngeen ñu ko waxee rek bu yére ñii ñu fay bu fekkee noo yafal nan jaay dem fay bu fekkee noo bay dem fay loolu daal mooy ndigal li soxna maam say Mbàkke di waxit ne am na yeneen jéego yu nga xam ne namm na ko seq ngir jukki ay ndimbal yóbbu ko ci daara yi rawati jàppale leen ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ngi gën a moytu feebar bi ñuy woowee coronavirus.